beneen ak bi ci def moy suñu mbokk animateur yi nga xamne ñoo nekk ci radio di yak deru gor yi defar ay émission fée divers ñu tuddé ko tës wala ñu tuddé ko xalaat waye lanu fay yak ci ay deru gor kenn mun la wax nu mu toll te loolu ku yaakar ne lu ndaw la wax na ne l'islam da danaan la bo ni diw mi njaaloo na ñu ne diw njaaloo na kan moko wax ñu ne diw mo tuumal diw ne njaaloo na ñu ne ko ndax am nga seede yi mu ne amul seede yi moom dañu koy caw juróom-ñett fukki yar ngir xas gi mu xas gorso nee na diw daa sàcc wala diw dafa njaalo te indiwul seede yooyu moom dañu ko war a caw juróom-ñett fukki yar ngir tuuma ju mu teg ci ndoddu jàpp mais émission yooyu ngay gis ñëw indi fa nit muy tuumaal gor yëpp ñu tegal la ko ne la nag ki nga tuumaal su ko neexee mën naa ñëwaat tontu si waat loolu mooy lan kooku bu dul nitu rajo nag est rajo yooyu ñëpp bëgg nañ ci dem gis naa ci benn waa yoo xam ne nii moom yi jàmbur yi rek la féete woo rawatina moodu moodu yi moodu moodu yaa ngi ci àll ba mais seen jabar yaa ngi fii di tëdd ak yeneen i góor loolu nit dina ko wax suñ bi xoolal moodu moodu li muy daj bàyyi sa ndey bàyyi sa baay bàyyi sa jabar bàyyi say doom bàyyi ñëpp wuti loo leen terelee yow mu jaral la nga bëtt ay frontières yu bare ay junniy junniy kilomètre di fande di jëñe di reere ndox ngir loo terelee sa njaboot am benn waaye mu toog fële téye micro naan leen yéen a ngi bitim réew mais seen jabar yi ñu ngi leen di tëddee fii ci réew xoolal googu yàq te kat boo ko ko laajoon amu ci preuve lu dul danaan la def na reportage am ñu ne ko tëdd nañ ak benn jigéen est ce que loolu doy na pour nga tuumaal jabaru jàmbur yi su ko defee kane ci àll ba def fa ñaari at ñetti at ne ah waa man est ce que sama jabar bokk ci sax parce que ñaari atu yàlla yaa ngi fii est ce que jigéen ñi mën nañoo muñee doon nga commencé nag bu la yónnee photo di gën a rafet nga ne ci góor ñi sa xel mi yàq complètement kooku ñaata sëy la mën a yàq yàqkat yu mel noonu la ñuy tekki ay roñ te moom xamul lu jabaram di fanaane xamul lu jabaram ji yendoo xamul ndax day sëy dem rajo ba toog waa moom diggante bi mu xëyee dem ci rajo ba nekk fa ba jant bi so mu ñibbis jabaram ci lu mu nekk xamul ko jabaram dina ko romb dem marché fan la jàdd mais musul traité kaawu jabaram mais kaawu moodu moo di rek seen jabar yaa ngi fii seen jabar yaa ngi dem fii seen jabar yaa ngi dugg nangam mu sànni ko ñëpp di sikk sàkk te moom jabaram def ci bokkul moom gis nga yooyu xeeti nit yu bon ñoo ñoo yàq société ñoo ñooy yàq xelu doomu adama yi keroog nee am na benn mbokk boo xam ne benn jigéen nee na daa jaaxle parce que doom ji mu askane jëkkëram jëkkëram juru ko lu tax jëkkëram juru ko parce que nee na am naag jëkkër ji problème euh, ñaan ko xaalis mu bañ mu dem seeti benn faram woon avant muy am jëkkër nee na far wa tëddan moom mu jëlee ci ëmb moom ku ne ko far wi ko ëmb ku ne ko jëkkër ji la wala far wi la loolu kan la leer moo jëkkëram ñi ngi sëy mais am na ñu problème ñaan na ko xaalis bañ na tëdd naag far wi après quelque temps am na ëmb mu ne far wi ko ëmbal moom ku ko wax far bi ko ëmbal léegi ndaw si nee na xamul nan la koy waxee jëkkër ji parce que faram bi moo ko ëmbal loolu dafa garaaw léegi nag mu ne góor ñu bëree fi ngénte te doom yi ne ngénte juruñu leen parce que yu kooku waratul woon wax ci rajo imagineel wax yu garaaw yu mel nii nga di ko wax di sikk sàkkaloo nit ñi ci seeni sëy te amoo benn firnde lu dul dox naa ci mbedd def naa reportage nee nañ ma dama sëy ak ko ñooñu ñooy yàq société yi te kon ñooñu la gën a déglu ñooñu la ñuy sponsoriser ñooñu lañuy ñuy jox xaalis ñooñu la ñuy teg écran yi jox leen micro yi ñuy yàq valeur yi ñu naan nag moom ay luxóor rek lay wax li muy wax lépp am te yow li muy wax doo ci teg bët ba àddina tukki ba defee yàqkatu deer yu mel noonu ñooy nitu safara yi ñooñu la ñu wax ne yow mal xiyaam bu leen yàlla di alak dañ leen di soppi golo soppi leen mbaam ko ndax nekk gi ñu nekkoon ci deru gor yi ak di tuumal ay gor te ci benn firnde lu dul dajeeg jigéen ci mbedd mi dékk ko micro wala góor ci mbedd mu ne la maa ngi sëy ak jabaru jàmbur képp waaw ku njaaloo yow est-ce war na laa wax sax loo gëm koo xam ne njaalookat la ñëw ne la tëdd naag jabaru jàmbur nga jël ko teg ko ci rajo bi loo ciy teg comme yow affaire bi leerul loo ciy teg te da nga am soxna comme ñëpp te kenn defuloo